pare ngeen ngir jaajëfalaat bu baax euh, Babacar fal ak euh, ganu info di jégalu sànq euh, maître Daouda Kala mandataire national bu coalition pardon Aly Ngouille 2024 fàttali leen ni Souleymane dina fi teew ci jàngat bi naka noonu suñu gan Cheikh Oumar Sy nekkoon député ci assemblée nationale ñu ñëw léegi ci xibaar yi ànd ci ak Cheikh Tidiane Diaw. ay waxi bàyyi dañ koy doore ak mbiram jamaa yi maître Moussa Diop nag mu mel ni dañoo dëgmal euh, loolu tubaab naan information judiciaire retour de parquet la am démb soo mayul nag tey Fati moom metre war na gisee ak procureur bi ci euh, coow loolu mu fi yëkkati di mbirum euh, jamaa yi fële ca bët gànnaaru réew mu mel ni nag yëf yi ca instruction la jëm ngir rek ñoo gën a andi leeral ci euh, coow loolu le euh, mbokk mi nag demoon nañ taxawu ko fële ca tribunal bokk na ci coordonnateur national euh, bu parti AG jot na moom nag li mu jàpp mooy li ñu téye seen loxo lu dëgër la moo tax amul lu ñuy tiit dañ koy déglu moom jàppaloo ci miko micro du fal ak Modou Diop. ñëwoon pour gis le procureur. par le biais de son avocat maanaam ci ci avocat bi lañ yëgee xibaar ni Moussa Diop kat day def retour de parquet maanaam day delluwaat ci commissariat yi euh, procureur jotu koo gis kon dañuy dañuy organiser waat pour mu pour mu gis la procureur de toute façon loolu la ñu avocat bi def. Moussa jóob du waxantu du nit boo xamante ni kilifa la du gàgganti ko aussi ci mbedd lépp lu mu yor rek gëm nañ ni ñun beton la. ñun nag duñ dugg di apprécier par rapport ak dossier beeg yooyu mais lu mu yor lu dëgër këcc la li ma bëgg a wax Sénégalais yi rek mooy dossier bii Moussa Diop yor Sénégalais yi la ko yoroon du partem du ànd gor yi. Diop parrainage bi man je suis le coordinateur national du parrainage dañoo matal ba ëppal costion bi c'est déjà réglé li xamal loolu rek Sénégalais yi mooy bientôt incha allah suñ procédure bi nu war a def yëpp pour déposer daanu ko def. ñu euh, wax itam ci leneen muy Ousmane Sonko nañ ko dugalaatee ci liste électorale yi loolu nag àttekat euh, bi moo jël bi la dogal niki démb mu mel ne euh, kuréelu ñiy layool nguur gi ñoom Euh, nee nañu dañuy dem euh, dañu yóbbu euh, pourvoi en cassation. ah sa cour suprême la ñuy delluwaat soxna Fati ñoom nag ci code électoral bi lañu sukkandiku surtout ci article yi L45 ak li ci topp ngir rek amal loolu lee ñoom suñu sukkandikoo ci maître ak i ñooñam nag ñoom nee nañu daal Ousmane Sonko faw mu xaar ba voie de recours yëpp jeex su bëggee xam ndax déet ndax mën nañ ko delloo ci liste électorale yi si ngeen ti sànq. Habib Faye euh, ñu wax ci mbirum euh, mbalit mi ak euh, collectif concessionnaire yi nga xamee ni dañoo jël ndogal depuis sept heures ni dañuy dakkal bépp opération de ramassage d'ordure boo xamee ni ñu ngi koy amal ci biir dëkk bi li ko waral nag mooy dañu jàpp ni nguur gi daf leen yoreel koppoor boo xamee ni daf leen ko waroon a fay depuis 30 mars 2023 waaye boobu ba léegi nguur gi defu ci dara moom moo tax ñu def lu ne mel la lii moom accident la accident bu metti am ca euh, Medina Wandifa démb ci ngoon dem ci guddi ay côté 9 ci euh, guddi ci département bu Bounkiling benn chauffeur nag nee nañu moom moo doon arrière euh, ba mbëkk apprenti ba apranti ba mujj fa jaar ñàkk bakkanam moom sax ci nee nañ moto Jakarta la nekkoon fi mu nekk nii nag néew bi jël nañ ko yóbbu ko fële ca morgue bu centre de santé bu Bounkiling di xibaar boo xamee ni sunu ndaw lu ñu fa toogal di baax Bakary Konté moom moo ñu ko xamal ñu wax ci résultat provisoire yi nga xamante ni génn na ci élection de représentativité syndicale yi nga xamante ni bërki démb lañu ko doon amal CNTS nag moom moo jiitu am 24 virgule 4 pour cent UNSAS topp ci nekk ci ñaareelu place bi ak 21 virgule pour cent CNTS FC nekk si ñetteelu place bi ak ñeenteelu place bi nag. Euh, CSA la ñu fa gis ak dix virgule cinq pour cent soxna Fatick. aywa ñu wax itam ci euh, beneen biir muy. lu jëm ci wàllu mbënd mi ak euh, mën naa ne nee ñu atum 2024 ba tax na jëwriñ bu ñu ko wàllu woowee daal mi ngi def defi euh, tegi pexe nas si pexe ngir euh, indi ci saafara. ab réunion bu ñu doon amal démb comité national de gestion des inondations def bilan bi nga xamee ni jot nañ ko liggéey ci 2023 bi nee nañu nag yëkkati nañ fa yeneen i projet surtout ci wàllu assainissement yoo xamee ni ci nawet. 2024 bi la ñu ko fas yéene def ci leeral rek dañ may teewlu Maimouna Ndiaye ak Yaaya Diallo ñu ñu fa teewaloon. lu aaju coppite gi ci wàllu jaww gi ak lu ni mel kuréel gi nga xam ni moom lañ fi teg ngir mu topp inondation yi li fi war ñu def ko ci nee nañu dinañ ko sóoraale bu baax ci programme bi nga xam ne namm nañ koo teg ci atum 2024 bi. mu ngi jóge ci COP 28 ñëpp xam ne ne tey jaww ji day wëlbatiku. tey li daawul am dañu gis ne léegi day am muy ay phénomènes extrêmes yuy manifesté woon nag ci manière yu bëri mais taw yu jéggi dayoo gis nañ ne aussi daf ciy manifesté wu loolu aussi ci biir liggéey bi dañu ciy boole fexe ba tàggat population yi fexe ba sensibiliser leen ñoom ñu xam ne yooyu yenn saa yi mun nay am mais nañuy fagaru li ko jiital ba nga xam ne ni bu ñëwee du du métti. ci lël bi nga xam ne amaloon nañ ko jëwriñ bi ñu dénk ndox mi ak assainissement bi di xibaar nii am na ay projet yoo xam ni dinañ ko door. Il convient de noter avec satisfaction qu'au Sénégal les actions mises en œuvre par l'ensemble des structures compétentes ont permis de maitriser les inondations sur toute l'étendue du territoire national, au point que, pour la première fois Depuis plusieurs années, le besoin de déclencher le plan Orsec ne s'est pas fait sentir. J'engage les services compétents en matière foncière, sous la coordination du gouverneur de Dakar, de poursuivre les actions de libération et de sécurisation des voies d'eau dans le bassin versant du lac Rose. tegtal yi tukkee ci seen liggéey nee nañu dinañ ko fësal file kii fan. ci wàllu tàggat yaram nañuy wax ak ci beach soccer équipe nationale bi war a dem tey jii ci ajjuma euh, ji fële ca Iran dafay amal nag ay jongante xaritoo ngir préparer coupe du monde bi nga xam ne ci Dubaï dañu koy amal fukki fan ak juróom ba ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février 2024 euh, entraîneur bi di euh, Mamadou Diallo nag yaakaar na ci def réglage yu mujj yi ngir rek Sénégal mun a am taxawaay bu am solo ci compétition boobu la ñu teewlu ko ak Cheikh Sadibou Diarra ñaari weer képp moo dox sunu diggante ak mondial bi ci soccer bi ca Dubaay équipe nationale bu Sénégal dugg ci pàcc bu mujj ci wàccaayam mu di door ay jongante xarito ak Iran diggante 15 ba 23 décembre bi match de préparation toujours c'est important si équipe après équipe bi ngay da war nga xool équipe bi ngay demal en préparation lan ut continue bi lan nga lan nga soxla si ñoom tey jii bu ñu amee Iran Iran mooy équipe bi nga xam ne dafa com com complet cest à techniquement sont bons tactiquement sont bo et c'est une équipe boo xam ne dafa dur si bal bi donc je pense que sama xalaat tey jii bu Iran donc euh, mun nañ dékku équipe bu nekk en coupe du monde et on ferait le maximum pour dékku ko pour wane suñu force si si kaw Iran aussi et après les résultats ne am na importance amul importance lii si ëpp mooy jouer match bi xool faa yi xool suñu fort ak suñu faiblesse. Sénégal bi yor raaya bu Afrique am na yéene jël mondial bi ba tax na lu ëpp juróomi weer mu ngi ci wàccaayam lu am solo. ça fait des mois ñu ngi liggéey ensemble. léegi ñu ngi dugg si ligne bi nga xam ne moo ëpp solo parce que à partir de mois de décembre janvier mu jeex préparation bi ñu dugg direct pour préparer coupe du monde bi donc way euh, pour sama groupe xam naa à peu près ñi ñu yaakaar ne ñu mën a apporter li ñu soxla si coupe du monde bi. c'est important parce que match de préparation si ngay mën a tegee préparer sa tactique sa préparer sa yëpp xool jour yi ndax apte nañ wala apte ñu ndax yàlla coordination et tout sax ñu ngi si ligne boobu aussi. équipe nationale bu Sénégal bu beach soccer bi nekk ci fukkeelu place bu classement mondial bi am na juróomi jour ci téeméer yi xëccoo beach soccer star. atum 2023 moom tamit bokk na ci ñeent fukki sélectionneur yi di jongante dëgmal ndaje boobu nga xam ni xamaguñu kañ la ak fan lay amee fàtti ñu jeexale ko ci huitième journée euh, bu ligue bu Sénégal euh, samedi fukki fan ak juróom-benn ci weeru décembre euh, jàmbar euh, moom dina dalal fële ca Stade Lat jamono bu Fatick jaraaf moom AS Pikine lay dajal muy match bi nga xamee ni Chérif Dia mi ngi ñu ci sonal fan yëpp jaraaf Pikine nag nekk match bu bu ñu bu war a bàyyi xel na parce que. saison yi ñu génn yëpp heure bu ñu dajee day am ay jafe-jafe on espère que dinañ ko football ci jàmm mu jeex si jàmm ku gagné euh, dem sa yoon fële ca stade Iba Mar nag la match bi di amee. ci dimanche gi nag euh, Dakar Sacré-Cœur moom fële ca Alassane Djigo dina dalal US Ouakam euh, Guédiawaye football club ca Amadou bari dina dalal Linguère bu Saint-Louis US Gorée ca stade Iba Mar Diop euh, dina fa dalal stade de Mbour Casa Sport moom fële ca Kolda lay dalalee Génération Foot sonakos moom dina dalal fële ca stade Lat Dior Teungueth FC mi nga xamee ne jamono ji moom moo jiitu ci classement bi soxna Fati. ñun waa Pikine non supporters yi kay moom bokkuñu ah, <laughs> ñoom nañu kii waaye daal nañ ko football ci jàmm ku nekk euh, ñibbi këram rek. doxe ay yitteem voilà jërëjëf moo gën. jërëjëf fitna baaxul fitna baaxul jërëjëf. waa Medina ñoo fitna. <laughs> si gën xamul fitna. <laughs> soo fair play ah. <laughs> waaw. xaw ma journaliste la xaw ma communicateur la. jërëjëf ngi nii yàlla ñu yàlla jàppale. sañseem bu rëy bi rafet bi macha allah. <laughs> jërëjëf Sidi Diagne Diaw waaye li mu tey li nga mën ci sañse li nga doon wax soo amoon ci maandu dina baax trop. am na am na suba sax lu nu war a def lu rëy benn gala ndax dañu war a tabax siège